ahlan bikum Barthélemy Dias xaw tuuti mu rey Ousmane Sonko fa koo dugg fa koo attaqué ci ay gaaru walla yu saf-sàpp l'observateur moo ñu ko xamal yaw seetal live la xamal ci Facebook am ba fa caa wax ne manipulation yi ak wax lu du dëgg gi doy na sëkk dafa yàgg yow koo xamante ne nekk goo président fa ngay saaga fa ngay tëkkuwaate léegi yow bés boo yore nguur gi xanaa fa ngay lekk sénégalais yi mu jeex sur ce a ne Barth kay fa fetal Sonko yàq kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee léeg si ko yéen a kaay ne Bart fa wàccee Sonko démb ne na fay manipuler rek te wax lu du dëgg gi nekkee fa doy sëkk ci le quotidien moom Barthélemy Diaz ne pensée unique nit ñëpp ñoo war a bokk nu ñuy xalaatee ci politique loolu mënu fee xam te faa bëgg mu xam ne yeewi askan wi nekkul mouvement de soutien ngir kenn wala ñu bëgg koo moomale kenn te koo xam ne ci boppam rek la ne ak intérêt léeg si ko a kaay ne Bart kay dem na ba na loo a doon donte di ko ko tiire te nee na fii su fekkee am na ku nekk fii di théâtre di manipuler nit ñi rawatina waa yeew yi du kenn ku may sonko te faay dëggalaat ne sonko yëgoon na dialogue bii te d'accordoon na ci regard yéen a kaay ne fi mu toll ni ak sonko xeex ci ay live facebook ci lañ nekk vox populi na ko weesu na foofu ñuy guerre totale regard ne moo taxit fi mu toll ni yeewi askan la ña ngi ci ay jafe-jafe réeroo gu métti militant fi yi patriotes yi ak militant taxaw yi ñoom itamit fa ñuy guerre jamono ji ca internet ba donte xam na ay kilifa yu dox tànki jàmm ngir yëf yi indépendant yéen a kaay ne Barthélemy Diaz xeex bii mu sumb baaxut ci moom de ndax fi mu toll nii gii ci ñetti fan presque Barthélemy Dias génn na ci xolu sénégalais yi rawatina waa Ndakaaru fa impopulaire jamono ji fa deltu ginnaaw bi mu tàmbalee attaqué Sonko ak léegi a yaaw seetal Alassane Dieng nee askanu Ndakaaru fa bañ nit koo xam ne traître nga te xam nañ ne léegi Barthélemy Dias Macky Sall lay liggéeyal njiitu réew mi ci biir yeewi moo tax lu ëpp juróom fukki junne ci askanu Sénégal bàyyi nañ Barthélemy Dias désabonné ca compte Facebook ba photo Barthélemy Dias sax ba tax mu ne yeewi askan wi léegi xam nañ Macky du kenn ku may Barthélemy Diaz léegi fa weeru te li ko Macky sant jamono ji mooy mu tas yeewi askan wi fantasi Mermoz ne Barthélemy Diaz ngandum ponk lu maamu traître la workat bu mag la waaye la daloon Bamba Fall ca Médina moo nar a dal taxaw Sénégal bu Khalifa Sall mi ah, yaaw seetal wote yi di ñëw 2024 taxaw Sénégal fa nar a ñàkk Ndakaaru fañ koy dóor ba tëral ko fantasi ne man su ma wotelee Barthélemy Diaz yàlla ak yeewi askan wi la Alassane Dieng na ko wax ji faa su taxutoon ak Ousmane Sonko ak yeewi askan wi du a nekk maire ànd ak nga am ndam waaye ku koy attaqué ci loo xam ne du dëgg ndax sa intérêt bopp wala di liggéeyal Macky sénégalais yi fa ñuy génn ci ba set wecc dootoo jarate dara te looloo daal fi mu toll ni Barthélémy Dias ko yéene ne Barthélémy Dias Macky lay liggéeyal fi mu toll ni weddi de ah démb ci conseil des ministres njiiteram Macky fafaa félicité jaajëfal rafetlu taxawaay Barthélémy Dias exclusif yéene ne ñaari maire yu bokk taxaw fa responsable wane naan amuñ problème ak ñi ngi waxtaan lii du daraak di ko soofantal ay tas na de Abdou Karim moo ko wax la mu ñu wax moom enquête yéene kaay moo ne yeewi seen ndaje mi ñu bëgg amal nag le 19 ci la féewaloo ga di gën a leer fay ragal ay responsable yu fa dem ñu yóoxoo leen fa l'observateur mais ni ko dank fay ragal nag Khalifa Sall ci boppam moom la yóoxoo ndax moom rek rek moo d'accord ci dem dialogue ji ak njiitiram Macky Sall mook booyam ci njiitëram Macky Sall mu wax ak sénégalais ñëpp dégg ne moom du bokk ci wote 2024 yi su ko defee dialogue mën a am fay sàkku tamit ci kujje gi rawatina Ousmane Sonko lépp loo xam ne mën naa xee fit nag yi ni mel ñu bañ cee dugg waaye tamit faa bëgg moo xam muy Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim Wade ñoom ñëpp fañ leen a war a bàyyi ñu bokk ci wote 2024 yi ndax seen àq ak seen yelleef la looloy dëgg waaye teree nit bokk ci ay wote te tegoo ko fenn lu muy lépp lu jëm ci àq ak yelleefu doomu adama ñu ko daan jiite kay fi mu toll nii fa xam ay problème yu bëri yu nekk ci kanamam ah, yaaw seetal yeewi askan wi F24 ñu ngi war a amal ay ñaxtu le 12 mai ak le mais ñu ne déetewaay jàngalekat yi tàmbali nañoo geraw ni ki tey ci alxames ji muy CUSEMS e ak SAEMS e waa Pastef ya nee nañ far force Ousmane Sonko fay bokk 2024 dàquñ sax ba xalaat ñaxtu ca kanam pale ba leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne fitna ja amoon ca ngor njiitiram Macky Sall ànd na ca ay saafara ndax terrain ba fa ñaar lii mu jox askan wi lii mu jox ko sandarma ya bés bi yéen kaay na ko saafara amagut de ndax ndaw ngor ya fa ñoo bañ d'accorduñ ci loolu njiitëram Macky Sall wax ab xoto bu croix fañ ko lakk ba mu jeex l'observateur na ko hôtel Ngor jaaraama fa la yàqu-yàqu ya ëppee lees ko yéen a kaay na ko faale ci yokkal Cheikh Yérim Seck journaliste këram gaañ a fañ koo taxal 24 heures yéen kaay na géejawaay tamit fitna rayante moo fa nar am ci wàllu suuf la dépêche yéen kaay du ñu xamal conseil <laughs> seetal fa xam ay politiciens yoo xam ne fa nasoon ay pexe ngir yàqal sëriñ boobu ba duñu voté yëf ya démb waaye fa mujj lajj ndax ci juróom benn fukki conseil ak juróom benn juróom benn fukki ak ñaar wote nañ ko l'évidence yéen kaay na sëriñ buub kay fa gàntal yàq pexe politiciens yi ko bëggoon a yàqal ndax la mu bëggoon am na laneen loo xam ca Kaolack ndàngaan mooy ay militant Mimi Touré yoo xam ne fañ koo bàyyi dem fekk ji professeur Ousseynou Diop maire mooy xaalis bi ko joxoon ko yoree ndekete ay wi xamal <laughs> yaaw seetal deux cent millions la luyee oto boppam moom ministre bi soixante millions ci la defaree ay meubles ca bureau deux milliards ci ñaari marché amical le peuple yéen a kaay moo ñu ko xamal ba tax critique yéen a kaay mel ni ku naan yaa ngi ko ba jatar kay faa ko jàqal ndax cour des comptes ma ngay lëñ ni mu yore woon xaalisu askan wi <laughs> xiidoona ya bunt ba ubbeeku na benn xale bu jigéen bu xam fukki at ak ñeent fa tuumal baayam bi ko jur na fa ko siif violé ko allah baay ja nag fa koo weddi fa wax na nañ def test ADN maanaam jël deret de daal xool su ko defee yëfee leer léegi man bala moo leer moom fa ngeen may may rek ma daw dem ndax faa foog ne daal njeextelu àdduna bi ci lañ ne jëfinu bàyyi ma fa ngay dégg loo xam ne sax doo ko gëm yow ndax garaaw bu mu garaaw sa doom bu jigéen bi nga jur fa ko war a abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew